الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر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 شمس ولاية الكبرى تاج العارفين مميد كل أولياء الله سيقنا وسيقهم حبيبنا وحبيبه مولانا الأبي العباس رضي الله تعالى عنه ولجميع مقدمه وتلامسه وكل من أحب من لدن آدم إلى نفقة الفسور أيها الإخوة أقوات نحييكم جميعا بتعية الإسلام نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yu tedd ñoo ngi leen di nuy ñoo ngi leen di ziyaara ñoo ngi leen di baalu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla dafa ñu jàmm ak tawféex ak najaa desuwaat neen tey suñu émission bi ñu baaxoo di def àllarba ju nekk ci waxtu bi ci Ngexo TV di ñaan yàlla dafa ñu ci sutura dafa ñu ci tawféex dafa ñu ci najaa yàlla barkeel làmmiñ bi tabaarakallahu ba lépp di njëriñ musal ñu seytaane musal ñu fa xastalu làmmiñ yal nañ ci yàlla boole musal ñëpp ci daraja nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee mbokk yi desuwaat nañ tey gannaaw bi ñu leen jàngalee lan mooy faratay njàpp ak i sunnaam ak su fekkee dafa am loo bàyyi ci njàpp lan moo di atteem waxoon nañ ko ci leçon bi passé kon tey dañu war a ñëw ak yéen ci li nga xam ne mooy yàq njàpp ginnaaw bi nga xamee farata yi xam ay sunnay njàpp tabaarakallaahu xam ay ngëneelu njàpp kon nag day jaadu yow jullit bi nga xam loo xam ne soo ko defee sa njàpp yàqu na bu ko defee tey loolu mooy nekk tomb bi incha allah rabbi su ñu demee bay tëj waxtaan bi am na ay laaj yu fi am incha allah rabbi dañ jooxal laaj yi nga xam ne rot na si ci élection bi passé incha allahu rabbi di wax it nag képp koo xam ne rek am na loo bëgg a laaj sa wàllu diine man nga ko def 77 510 13 95 insha allah rabbi dañ la tontu ci kàttun yàlla kon bu ko defee rek borom xam-xam yi dañoo jàngale ne li nga xam ne mooy yàq njàpp dañ koo xaaj ñaari xaaj am lu ñuy tuddi al asbab am lu ñuy tuddi al ahdas asbab nag moo xaw a am lënt ci doomu aadama yi waaye ahdas ta muy toji ñëpp xam nañu ko bi ci njëkk mooy nit bu jàppee ba pare saw ndax xam na njàppam yàqu na defe naa nit moom lu mu gàtt-gàtt xam-xam tabaarakallaahu boo jàppee dem sawi rek xam nga ne njàppal yàqu na ñaareel bi mooy nit bu jàppee dem toilette mooy dem duus njàppam yàqu na loolu itam nit ki lu mu gàtt gàtt xam-xam war na ko xam beneen bi nit bu jàppee ngalawal tabaarakala mooy am lu génn ci suufam te mu ànd ak baat te mu ànd ak xeej comme lu ko yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale dafa ànd ak baat wala mu ànd ak xeñ ñu tuddee ko ngalawal tabaarakallaahu loolu bu ko nit génnee njàppam yàqu na beneen bi itam li ñuy tuddee masiw mooy danga jàpp pare yëg ne sa awra bi am na ndox mu ci génn tabaarakallaahu njàppal yàqu na wala itam muy wadd yu yu moom it ci awra lay génnee fa tabarakallah su fekkee nit ki dafa jàpp ba yëg loolu na xam ne njàppam yàqu kon loolu mooy ahdaas li nga xam ne nag sabab yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi ne dafa yàq njàpp nekk na asbab yoo xam ne na bi ci njëkk mooy nelaw nelaw dafa yàq njàpp waaye nelaw nag dafa dafa ko ci ñetti mbir wala ñeenti mbir mom nelaw ndax am na nelaw yoo xam day yàq njàpp am na nelaw yoo xam ne du yàq sa njàpp am na nelaw yoo xam ne bëgg neen boroom jàppiwaat boroom xam-xam bi nee na nelaw su fekkee nelaw yu diis la lu mu gàtt gàtt wala lu mu gudd gudd njàppal yàqu na kon nelaw yu diis te gàtt wala nelaw yu diis te gudd fa tabaarakallaahu njàppal yàqu na ñu ne waaw nelaw yu diis te gàtt nu ko nit mën a xamee wala nelaw yu gudd tabarakallah te dis, naka la ko nit mën a ñu ne mën yow ñoo tok den ci photo yi bi wala ñoo bokk tok ci bassin bi jóg ba genn te yeguma so njàppoon njàpp yakuna na ndax dara mën genn ci yow tuddo ko yek tabarakallah wala sax yow kenn ya nek ci salle bi salon bi tok man ñëw naa ba porte bi ba dugg ci biir tok yeguma ma def buri nga dog ma yek tabarakallah bo japon yakuna boo jàppoon njàppali yàqu na ndax parce que bi nga tëddee noonu rek amaana am lu génn ci yow te doo ko yëg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne doomu aadama bu xasee nelaw tabaarak cëram mi dañuy tekkeeku maanaam buntu cër yëpp ay tekkeeku law dara mën naa génn ci yow ah, te doo ko yëg moo tax sax ñuy fareel di tere nelaw ci mbooloo parce que mën nga nelaw ci mbooloo génne loo xam ne ëllëg tabarakallah mën na nekk kersa sa diggante ñu fa nekkoon wala ñoom mën nga ko bañ a yëg te ñoom ñu yëg ko bu ëllëgee mun ñu la koy xoolee moo tax nelaw ci mbooloo tabarakallah mag ñi dañ dañ dañ ko fa tabarakallah kon nelaw yu diis yooyu noonu lañ koy xamee man yow toog nañu di waxtaan jog naa te yëgu ko wala am na ku ñëw dugg si ba toog ba def benn yu nga doog ko yëg su fekkoon na nga yàqu na nelaw yoo xam itam ah sopp nañ ci boromam mu jàppiwaat donte génnewul dara mooy lan yaa ngi tëddi ci néeg bi yaa ngi nelaw waaye nelaw yi guddul diisul kon fa tabaarakallaahu ku dugg nga yëg ko lu waaye wax nga xaw ko xelmati waaye yaa ngi xaw a jaaya ko boo bu ko defee tabaar su fekkee yàgg na bëgg nañ balaa ngay julli nga daal di jàppiwaat gis nga moo tax lislaam bàyyiwul dara fa tabaarakallaahu beneen bi itam bokk na ci li nga xam ne mooy yàq njàpp mooy da nga jàpp pare nit ki tàggu ak sago maanaam xelam nekkutu ci parce que am ñoo xam ne dañuy yore feeb feebar feebaru xel xëy na yow da ngay faral di jël say comprimé jëloo sa per jëloo say garab bi nga jàppi par rek tàggoo sa sago tabaarakallaahu tàggoo sa sago daal mel ni koo xam ne euh, tabaarakallaahu euh, xelam dem na xàmmetu ndeyjoor xàmmetu càmmooy ko defee kooku su fekkee dafa jàppoon gannaaw bu del xel mi del siwaatee balay julli na dem jàppiwaat ndax jamono bi sa xel mi demee amaana am na loo génne te doo am yëg-yëg parce que nit bu xelam demee rek mën na nekk lekk sax lu salte te du ko bàyyi xel yenn saa nga romb ñoo xam ne dañoo xaw manqué xel fekk lañ ci mbalit bi ñuy gës di lekk parce que mën ne dégg sax nga gis ñu tuur seen boppu ndox parce que amatoo yëg-yëg bi xamatoo lu neex xamatoo lu naqari xamatoo lu set xamatoo lu tilim fa tabaarakallaa bu ko ku ko xel mi dem na bu ko defee su fekkee nit ki loolu daf koo dal donte bi mu ko defee ak bi xelam di desuwaat matu juróomi minute wala matu fukki minute bu bàyyi itam il bëgg nañ balaa jàpp balaa julli mu daal di beneen bi mooy lu mel ne dof tabaarakallaa dafa mujj dof na jàppoon na ba léegi mu daal di dof bëgg na itam balaa julli na dem jàppiwaat parce que itam euh, mën na nekk mën na nekk mën nga préparer julli dem jàppi laata ngay pare wala gannaaw bi nga pare am feebar bu la dugg nga daal di def completement bu ko def fekki loolu dafa dal nit ki fa tabaarakallaahu njàpp li yàqu na fekkoon na jàpp na balay julli na di la jàppiwaat beneen bi si itam mooy lu ñuy tuddee xëm su fekkee doomu aadama bi itam fa tabaarakallaahu dafa jàpp ba yeggal yàlla dogal mu daal di xëm mën na nekk crise jàpp ko dafa bañ a pigiru mu ñàkk pigiru daal di crise wala am feebar bu koy dugg mu daal di crise daal xëm gannaaw gi ñu sotti ko ndox walla ñu bës ko ab diir mu yeewu su fekk bi mu koy def fekk jàpp na tabaarakala bëgg neen balaay julliwaat mu dem jàppiwaat ndax amaana am na lu génn ci moom te du ko yëkk amaana am na lu génn ci moom loolu moo tax ah, lu ñu tuddee xëm al daa bokk ci sabab yi nga xam ne mooy waral nit ki jàppiwaat day bokk sabab yi nga xam ne day waral njàpp lu yàqu parce que nit bu xasee xëm rek tàggoo naa kom bu ko defee tabaarakalaam njàppam day daal yàqu beneen bi des muy lu ñu tuddee ak sukkur mooy màndi doomu aadama bu jàppee ba pare daal di màndi yow fa jàpp nga normal bi ngay julli tisbaar normal nga màndi woo ndax am na julli ñoo xam dañu naan sàngara waaw da ngeen dañu naan sàngara tabaarakallaahu bu ko defee yow bi ngay julli tusubaar yaa nga normaloon yaa nga ànd ak njàpp laata ngay julli tàkkusaan nga dem naan ba mandi nga daal di naan ba mandi tabaarakallaahu bi nga naanee ba mandi amaana am na lu génn ci yow te doo ko bàyyi xel bu ko defee kon mandi googu day bokk ci sabab yi nga xam ne moo yàq njàpp màndi gi nag boroom xam-xam dañ koo tënk ci ñaar Moham xam mandi gi ci lu aram la wala mandi bi nek ci lu dagan parce que nit man na lekk yàpp euh, man nga sante jaañ wala ñang fa tabarakallah wala ak njobi di ndawi nga xam ne tabaarakallaahu dañuy lek rek bu ko defee kon nga lek yap wala nga nan sow ba xamé to sa moy sek ndejor bu ko defee njàpp li day dal yak kon kon mandi, fay yak njàpp su fekke mandi sangara la nak mom da ngay am ñaar da ngay am bakar bu pare am tabarakallah daanu suñu borom waaye itam sa njàppul daal di yàqu kon bu loolu bokk na ci bokk na ci itam mooy lu ñuy tuddee murtat da nga jàpp pare na génn naa ci lislaam man daal lislaam génn naa ci ndax seen mbir fa tabaarakallaahu dafa metti génn naa ci lislaam soo ko waxee sag làmmiñ te forcé amu ci parce que am na loo xam ne bu la ci nit forcé nga def ko yàqul dara nga wax ko yàqul dara waaye su fekkee yaa ko def sa teyu bakkat nag dafay daal di yàq comme lan xam naa taxu taxuñoo jóg sax ku ñu forse na la fasel sa jabar fasel sa jabar soo ko deful ñu rey la nga daal di fase sa jabar nag fase naa ko fase moom tàbbiwul weddil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo ko deful ñu rey la fa tabaarak nga weddi ko waaye làmmiñ baa ko weddi waaye xol bi weddiwu ko loolu itam kenn du la rey kenn du la def dara ndax dangaa sauvé sa bakkan waaye na tabaarakallaa su fekkee nag léegi loolu yëpp amul forcé wu ci dara yaa jékki rek wax ne man de génn naa ci lislaam yan si yàlla musal ci baat boobu nga daal di murtat fa tabaara su fekkoon ne bi ngay wax loolu yaa ngi ci njàpp njàpp li daal yàqu na wala sax ngay sikk sàkka bokk na ci lu yàq jàpp ngay sikk sàkk na waaw man est ce que jàpp na wala jàpp ma waaw ngay sikk sàkk man est que man jàpp na wala jàkk wa bi shakk fi la addisi wala ngay sikk sàkk na man damaa tojle ba pare da ko jàpp wala dama dem dusu bu pare da ko jàpp wala dama dama jógee si duus ba da ko jàpp di di xalaat ban nga ci njëkk def da nga jàpp pare da ko dem ci duus wala da ngaa jógee si duus ba pare da ko ñëw jàpp ngay sikk sàkka njàppali ak toj bi ban moo jiitu ñu ne ah li gën a wér mooy demal nga jàppi wat sa njàppali yàqu na kon loolu itam day bokk mbokk ci li nga xam ne mooy yàq njàpp beneen bi itam mooy lan mooy tabaarakallaahu ah, laal awra lal awra dafa yàq lal lal awra dafay làq Manam manam da nga japp pare xeyna sa sa kanam di xesan nga jël sa loxo duggal ko sa pos xesan woku fa tabarakallah lal sa awra darbi sa deru loxo ak sa deru awra bi tak lal rek bu ko defé tabarakallah yakuna parce que nit bu lal lal awraam mo xam ci tinqam la ko lalé wala moo xam daf koo laale ci ay baaraamam wala mu laal ko ci catu baaraamam borom xama doonte kii am juróom-benn baaraam la sax baaraam mu ndaw bi moo laal awraam rek bu ko defee tabaarakallaahu njàpp lu yàqu na kon saa boo jàppee laal sa awra moo xam laal gi yaa ko tey wala laal gi teyoo ko bu mu ci mën a doon rek fa tabaarakallaahu njàpp li yàqu na kon jàpp laal sa awra tabaarakallaahu da yàq njàpp waaye nag jàpp ba pare fekk yaa ngi yore émorite nga puusaat hémorroïde mu dugg loolu yàqu njàpp mbokk yi parce que loolu itam lu jar a leeral la parce que nit dafay am hémorroïde boo xam dafay faral di génn ginnaaw bi nga jàppee ba pare yëg nga ne sa hémorroïde génn nga nga jël sa loxo puus ko mu duggaat tabaarakallaahu loolu yàqu njàpp wala sax tabaarakallaahu yooyu yëpp jar na bàyyi xel parce que feebar la boo xam ne feebar la boo xam ne euh, dafay ànd ak ñun jamono ju nekk kon fa tabaarakallaahu dana jar itam ñi bàyyi ci xel ci lu mel noonu kon loolu yëpp euh, nekk loo xam ne dafa yàqu njàpp kon bu fekkee da nga yore feebaru hémorroïde feebaru hémorroïde nga yore tabaarakallaaw mu daal di génn nga jël sa puus ko mu delluwaat loolu tabaarakallaaw yàqul sa njàpp waaye bëgg neen euh, nit ko ba pour ko bàyyi xel bu baax baax kon gis nga lii yëpp nag lislaam mooy diina joo xam ne bàyyiwul dara moo xam nga xam ko wala nga ñàkk koo xam lislaam mooy diina ju mat fa tabaarakallaahu ndax yàlla daf koo wàccee jox ko ki nga xam ne moo mat ci nit ñëpp te muy sayidina muhammad sallallahu alayhi sallam gis nga kon njàpp soo xoolee njàngat bi mooy lii yàq njàpp day génn ci nit ki maanaam aji jàpp ji moo ko def kon gis nga boo jàppee ba pare te fekk sa doom mu ngi ci poto sàmbur bi mën nga koo dem raxas laab ko te dara nekku ci soo jàppee ba pare mën ngaa sang sa doom itam te njàppali yàquwul soo jàppee ba pare boot sa doom sa doom bi saw la itam njàppali yàquwul am na ñu bari dañoo jàpp ne sa doom bu la sawee walla nga jàpp ba pare laab sa doom fa tabaarakallaa wala laab xale boobaa njàppali day yàqu fekk loolu yëpp fa tabaarakallaa yàqu njàpp beneen bi bokk na ci lu yaa yàq njàpp mooy jàpp ba pare laal jigéen maanaam ñëw jox loxo jigéen nga jox ko loxo bi nga ko joxee loxo am ci bàkkaar am nga ci bàkkaar waaye su fekkee am nga ci bànneex sa njàppal yàqu na moom laal jigéen ñeenti xaaj la wala ñetti xaaj su fekkee laal bi nga laal ndaw si am nga ci bànneex sa njàppal yàqu na laal bi nga laal ndaw si jubli nga ci bànneex waaye bi nga téye loxoom gis nga loxo yi dafa wow amoo ci bànneex njàpp li yàqul wala sabaarakallaahu su fekkee bi nga ko bi laata nga koy laal jublu nga ci bànneex te am nga ci bànneex njàpp li yàqu na laal jigéen condition la ci lislaam teg mooy su fekkee ndaw si daal bi koy laal da nga jublu bànneex te mooy nga am ko ci njàpp yàqu su fekkee ba koy laal jubluwoo ko ci waaye bi nga ko laalee am nga ci plaisir tabaarakallaa moom it njàpp li yàqu na njàppal yàqu na kon lii yëpp lislaam moo ko jàngale muy lislaam tabaarakallaahu su fekkee itam euh, bi nga koy laal jublu nga ci bànneex am ci bànneex njàppal yàqu na fa kon laal jigéen te am ca bànneex ca laal ba loolu yëpp day waral njàppalu yàqu loolu la ko boroom xam-xam jàngale mbokk yi kon loolu lu jar a bàyyi xel la beneen bi itam li yàq njàpp mooy fóonante saa boo jàppee fon sa soxna sa njàpp li yàqu na waaw su fekkee nag ki nga ki nga laal am ci bànne xëy na mën a nekk sa soxna maanaam da nga jàpp pare rek tombeek sa soxna tukki woon di dugg ci kër gi nga dem nga dem akkulaat ko wala nga lëng ko lëng bi nga ko lëng nga am ci bànneex boo jàppoon jàpp li yàqu na su fekkee da nga jàpp ba yeggal fóon sa soxna moom kenn la laaj la nga si jublu bànneex wala déet jàpp li yàqu na fuun mom bu xasse am rek tabarakallah jappal yakuna borom xam-xam tas ko nak na su fekke na da nga fuun ku melni sa yaay wala sa wala sa mak wala sa rak bu jigen wala sa dom sa jappal yakul ndax fuun bobu duñ ci wut banex motax tax sa yaay dafa tukki mu yexse rek nga akulat ko ndax nam ko wala sa sa doom bu jigen wala sa mak bu jigen wala sa rak bu jigen wala sa dom fa tabaarakallaa bi ko akulat gëna bi nga jappé yakul sa ndax lolu fofu bànneex mënu fa amoo moo tax fa tabaarakallaahu waaye su fekkee yeneen la te muy laal jigéen rek njàpp day daal di yàqu jigéen nag moom tabaarakallaahu lay yàq njàppam comme luy yàq njàpp góor rek mooy yàq njàpp jigéen ñoo bokk àtte lenn rek la ci borom xam-xam yi sitte mooy góor moom bu laalee awraam njàppam yàqu na léegi dañu ne jigéen bu jëlee loxoom teg ko ci awraam njàppam yàqu liy yàq njàppay jigéen mooy day jël baaraamam dugal ko ci biir awraam fa tabaarakallaahu ñu ne kon foofu lay yàqu ndax dana am yëg ndax jël sa loxo teg si awra jigéen rek mën naa am du si am bànneex kon boo jëlee baaraam dugal ko ci biir awraam rek tabaarakallaahu moom bu dugalee baaraamam ci awraam moom tabaarakallaahu jàppal yàqu na kasaalik boo jàppee ba pare laal awray keneen yow mi laal awray keneen xanaa nga am ci bànneex waaye soo si amul bànneex tabaarakallaahu sa njàppal yàqu kon loolu yëpp nag lislaam moo ko jàngale kon loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax kon fa tabaarakallaahu ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yaan yàlla dafa ñu dégg ak topp defal ñu suutar gu mat sëkk bi xormati nabil Mustafa sallallahu alayhi bu ko defee kon mu ngi noonu li nga xam ne mooy waxtaan bi xëy na gàtt na waaye mën na amal nit ki njëriñ bu baax a baax kon gis nga jàpp ak tiim mbokk bi waa ji ñëwee sëriñ Fallou radiyallahu taala anhu di ko laaj njàpp ak tiim ban moo ci gën mu tegaleel ñaari junne ne la yow muy laajte tiim tiim ko waaju tiim ñaari junne yi rek waaw mu ne ko tiim nga ko mu ne ko waaw tiim naa ko lii de ñaari junne la mu ko baax na jërëjëf mu ne ko yow mi wax jàpp nag anam mu ne ko nii mu ne ko jàpp ko mu daal ko jàpp mu ne ko demal ak moom tabaaraka waa ji dem ak ñaari junne yi mu àtti leen ci àtti bu rafet tabaaraka moo tax njàpp mu dafa am solo waaye gannaaw bi nga jàppee itam daa am luy yàq njàpp moom lañ loon leeral par benn pour nga gën koo bàyyi xel am na ñoo xam dañoo jàpp ne buñ jàppee génn kër ga sax buñ dellusiwaate dañoo war a jàpp seen jàpp lu yàqu na déedéet njàpp lu koy yàq ci yow mi jàpp ci lay jógee ko mën na bañ a jógee ko ci kenn même boo loon jàpp sax nag euh, tabaarakalaaw sa doom saw sax nag te fekk yaa ngi ànd ak njàpp wax ko ci biir waxtaan wi du tee bu wér dara nekku ci fa tabaarakalaaw kon loolu am na solo baax ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala dafa ñu jàmm ak ak jaa bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa mbokk mi ñu daal di ñëw ci laaj yi mbokk mi dafay laaj ne moom dafa takk soxna bi takkee soxna nag moom daal xool na daal ba ba seetantal li taxoon muy takk soxna si nekkul ci soxna si ndax daal saa bu ki bàyyee dem voyage yi ndaw si dafay ànd ak yeneen góor dafay fanaanoo yeneen góor walla sa ndaw si bu ko xëy na demal tukki damay tukki dem fenn ndagam tukkiwul ci ay faram la jëm muy laaj na ku góor ke nan lay def li koy tontu ci daara ji rek mooy moom xamuñ looy def de parce que boo dee ba xam ne sa jabar day mooy mu leer na day mooy l'essentiel yow yaa yor responsabilité bi bu la neexee nga ànd ak moom ci loolu le soo la neexee nga fase ko na jàpp naa ne kenn bëggul soxna suy mooy kon nag am na loo xam ne tabaarakallaahu euh, laaj bi sax da gër naa yaatu loolu fa taw ndax bi mu koy bëgg a takk ay waajuram dañoo bañoon taaru ndaw si jaay ko ba mu dugg ci ndaw si waaye nag tabaarakalla bi mu duggee ci ndaw si xam na ne daal kii jabar la waaye du soxna kon li ñu wax rek mooy euh, jabar des na ko tànn wala soxna de des koy wut du ku la neex rek du borom taar baag euh, tabaarakal te américain baag njoolaay baag fekk yow rek moo la neex ci soxna tabaarakalla bu ëllëgee ngir ci ko kon fekkee yow da ngaa takk soxna ngir jàmm yàlla saabu la tàggoo na maa ngi tukki dem ci lu ko neex yow saa tukkee bu fanaanoo ñeneen. ngay laaj na lan la ko yow yow jëkkër ji lan la lislaam teg mooy tabaarak soo ko mën a bàyyi nga bàyyi ko soo ko mënta bàyyi nag tabaarak laaw nga ànd nag moom rek ci lu ko neex loolu incha allah rek kooku mooy premier laaj bi ndax nag ci lislaam moom fekkoon ne lislaam dafay àttewu ndaw su dañ ko war a rey ndax jigéen bu xasee am jëkkër bu mos a am jëkkër bu demee sëy beneen góor rek lislaam da ko reylu góor goo xam ne am na soxna itam mos na am soxna bu demee sëyeeg beneen jigéen bu lu jabaram lislaam da ko reylu kon àtte lislaam la kon su fekkee ne àtte réew mi àtte ci lislaam sa soxna di def loolu te yow nga xam ko yow ko borom kër gi bàyyi ko mu dem moo gën muy ñëw yàq sa njaboot su fekkee mun mënoo ko bàyyi la tabaaraka la kon kooku sa affaire la ngeen bokk dund rek tabaaraka la kon loolu rek mooy tontu boobu mbokk mu doon laaj incha allah beneen laaj bi mbokk bi dafay laaj ne waa ji dafay laaj sujjuut sax wi maanaam. lan mooy xabla salaam ak lan mooy baada salaam dafa naan yàgg nañ ko tontu waaw yàgg nañ ne tontu lan mooy xabla yàgg nañ ne tontu lan mooy baada waaye na xëy na tabaarakallaahu du doy bu ko defee xabla salaam mooy avant ngay sëlmal loolu mooy xabla salaam avant ngay sëlmal mooy balaa ngay sëlmal loolu mooy xabla salaam baada salaam mooy gannaaw bi nga sëlmalee ba pare loolu mooy baada salaam bu ko defee nag xabla salaam lan moo koy waral ci julli. moy ko xamne dafa wañi ci julli dafa wañi ci julli dafa wañi ci julli koku da fay sujud khabla salam lan la wañi dafa wañi yelu wala mu tabarak dafa wañi biral dafa wañi biral wala mu wañi sar wala mu wañi taya wala julli gi waxu ci ben yon allahu akbar wala waxu wala wala bayina ci ñetti ñetti allahu akbar wala bayina sami allahu liman amidu ñett wala ko ëpp yooyu ci borom xam-xam yi ci ngiru Malik ne daf koy sujootal xabla salaam kuy julli bàyyi saar wala nga bàyyi taaya wala nga bàyyi sami allahu liman hamidahu lu ma ñetti yoon wala ñetti kàbbaar waxoo ko ci julli gi ah Malik nee na da nga koy sujootal xabla salaam soo jullee ba julli gi jeex ba nekk sa dernier taaya ba taaya ba pare balaa ngay wax asalaamualeykum nga sujoot ñaari sujoot taaya sëlmal loolu mooy xabla salaam bu ko defee baax na salaam nag li koy waral. mooy koo xam ne dafa yokk ci julli daa yokk ci julli daa yokk ci julli lan la yokk ci julli mooy julli ñeenti ràkk la mu def ko juróomi ràkk kon na si julli beneen bi mooy tàkkusan la doon julli tàkkusaan da ko war a wax ndànk ma mu juum wax ko ca kaw tabaarakallaa kon yokk na ci julli bu ko defee si mel noonu su fekkee nit ki daf koo def ci biir julli wala dafa waroon a taaya mu jóg toog parce que mu del toogaat mu jóg taxaw gannaaw gi mu ñëw toogaat tabaarak la jaabante bi la yokk ci julli gi bu ko defee loolu day war a sujjóot ba'da salaam bu ko defee moom bu jullee ba julli gi pare ba wax asalaamu aleykum ba pare day sujjóot ñaari sujjóot taaye sëlmal fa tabaarak la loolu mooy ba'da salaam bu ko defee mbokk moom loolu la doon laaj ci tabaarak laaj bu incha allah mbokk mi di laaj ne dafa dégg ñu ne doomu njaalo du donn ah doomu njaalo dafay donn mu ne loolu jaaxal ko lool. tabaarakallaahu ah, na doomu njaaloo daa war a donn ndax ah, lan moo tax woy jur ji ah lan moo tax woy jur ji moom donn ah, jur ko tamam du donn moom loolu daal daf koo jaaxal fa tabaarakallaahu mu ñëw di ko laaj ci daara ji na loolu daal jaaxal na ko moo tax dafa dégg yenn ci borom xam ko ñuy wax ne doomu njaalo daa war a donn comme doom yépp ñu war wax na dëgg doomu njaaloo day doonu yaayam waaye du doonu baayam waaw doomu njaaloo dana doonu yaayam waaye du donnu baayam boo demee ca téere maam Cheikh Seydi Hadji Malick radiallahu taala anhu ah, kawkabul munir dafa lay wax ne bokk na ci sarte yi donn mooy koo xam ne bokk na sarte yi nga xam ne dañoo war a donn ak ñoo xam ne du leen tere doon yëpp boo demee tabaarakallaaw maam Cheikh Seydi Hadji Malick jàng na ko xam na li itam boo demee ci wàllu doomu njaalo du doon wax na ca doomu njaaloo du doon kon loolu ñoom ñëpp tabaarakallaaw dëppoo nañ ci na doomu njaalo doon waaye nag aji miraas ji moom bu am stratégie bu baax te xam jamono mën na miraas ba pare te coow du am même aji doo xam ki nga xam ne sax mooy taawu kër gi. wala mooy magu kër gi te nekkul doomu nekkul doomu yoon mën na bañ a xam sa nag nekkul doomu yoon dafay aju rek aji miraas ji ci xel mi mu war a teg stratégie bi mu war a am ak li mu war a jiital ci wàllu waxtaan ba loolu yëpp tabaaraka la du feeñ waaye nag ñu xamal ko ne lu ñuy tuddee doomu njaalo tabaarakallaaw du doon ñaareel bi itam mooy ki nga xam ne itam ah, dafa rey nit ki te tay ko ki rey nit te tay ko fa tabaaraka la moom it du donn ci àllam beneen bi itam ki nga xam ne la añ la rëbboo la da am doom nga ne kii juruma ko rëbboo maanaam yow sa soxna dafa ëmb nga ne ëmbuluma ko wala sa soxna am doom nga ne doom yu juruma ko ba ngeen rëbbooyee doom jooju kenn ko donn du donn bàyyam ndax papam reconnaître ko kon moo tax tabaarakallaahu du ko donn koo xam ne itam bokku leen diine ko xamne ne bokku len diine tabarak dafa nek ci diine yahud wala diine euh, nasaraat yow nek l'islam fa tabaarakallaahu euh, ko itam kenn ko don kon li moy ñi nga xamne ne don wonte ci euh, tabarak tabarakallah l'islam jangale ko kon lu am am solo benen bi dess bi ñi teje rek mbokk mi fay lacc ne tabaarakallaahu maanaam julli jumaa la jullik jumaa la mu ñëw ci jumaa ji fekk ña rawee ko benn ràkk fekk na imaam xutba ba pare indi benn ràkka indi benn ràkka ba pare moom mu fekkee deuxième ràkk ba nee na bu imaam sëlmale lu muy def bu imaam sëlmale day dem rek indi benn ràkka taayi sëlmal bu ko defee loolu koy fay ñëw nga ci jumaa ji te jumaa ñaari ràkk la ñu la benn rakka bu imam sëlmalee rek tabaarakallaahu da ngay indi benn rakka tàyyi sëlmal su fekkoon ne da ngaa ñëw ne fekk imam nekk ci dernier taaya da ngaa ñëw fekk imam nekk ci dernier taaya nekk ci taaya walla nga ñëw fekk imam ci deuxième rakka ba rukkoon ba siggi ngay da ko yegg si bu ko defee nag bu imam ñëwee bu taayee sëlmal yow doo doo jóg ndax jumaa kenn ko julli kenn nit boba nan ngay def moy da ngay dem lem sa basan dem ñibi bo yegge sa kër liqaam julli eh, tisbar wala sabu imam sel nga liqaam dank daal di julli tisbar, fa tabarak lo si def baax na li gën moy fa tabarak la ko dem ba sa kër ndax nit man na ñaw jort ci li nga def ta ñak xam ko bu jëlee ci bakkar wata kon su fekke da nga ñew fekk imam ruko na ba siggi ci deuxième rak ci bisu aljuma wala fekk nga imam nek ci dernier taaya ci bisu aljuma nga ñëw fekk ko si fekkuloo si dara bu imaam sëlmalee moo yow toogal rek boo demee sa kër nga liqaam julli tisbaar am ñu la déere fu mu neex man ko neexee mën naa toog liqaam tabaaraka la jóg julli tisbaar waaye du jéem a indi ñaar rakk ndax jumaa mbooloo la war te yow fekk nga mbooloo mi sëlmal te yow kenn nga kon mënoo julli juma fa tabaaraka kon boo koy fay tisbaar ngay julli rek waaye doo julli ñaar rakk fa tabaaraka la kon bu ko defee mbokk yi tey lii moo nekkoon suñu waxtaan te incha allah ci àllarba ji li nga xam ne mooy tabarakallahu ñaan yàlla subhanahu wa taala ñaan yàlla dafa ñu tawfiix dafa ñu najaa dafa ñu sutura sax dàkk bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee waxtaan baa ngoon incha allah rabbi képp koo xam ne rek am na loo ci bëgg a laaj wala loo ci bëgg a leerlu incha allah boo ñu wooyee ci 77 510 13 95 rek incha allah rabbi dañ la tontu ci kàtt yàlla subhanahu wa taala kon ñu ngi jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñu indi woon seen laaj te leen ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ñu wax ne rek émission bi chaque àllarba lay nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر لك الحمد ولك الشكر على أن وفقتنا لصيام